ak fi ñu dama bëgg téléspectateur yi xam ne biti bi. Mm. non mi ngi toj tante yeeg. mi ba pare fa lañ leen jëmee en direct. ci kanam tuuti incha allah waaw lii lan la nii Lamine nii nga def. laax baa ngi noonu. ah baa ngi noonu lii mooy raxasu mi. ah nañ yegg xam nga bu njëkk raxasu. dañ ko daan def ci leket may ma may ma xaw ma nu mu tuddati. waaw Mia. ñëwal ma tekk sama loxo. et nii ngay def bu baax. nii ngay def waaw kay. Mia. tegal raxasu bi raxasu maa nekk nii Boubacar mënoo raxasu si leket de. ah kay non leket kenn du ci raxasoo nii. déggoo de. da ngay sëpp loxo yi. sëpp waaw bombal. ma bomb ko waaw eh Baye. eh Mbaye. ah. eh Mbaye. El Hadj Amadou gar mi jëm jëw naa la. waaw raxas naa sama loxo ba mu set de. ba pare ne nii. dama fàttali nekk que euh, euh, euh, le nouveau ministre de la culture. Uh-huh. et du tourisme. Uh-huh. Euh, président directeur général groupe Futur Média Youssou Ndour mi ngi ci yoon bi mu ngi ñëw. ndeysaan <laughs> yow ngénte li moom waaw léegi. Uh-huh. bu wag boo defee nii ba pare. waaw nga delloo ndox raxas bu njëkk. waaw bu njëkk. Mm-hmm. te da daan sukk. waaw boo defee nii. waaw boo defee nii laax. waaw laax dafa am. ni ñu koy ni ñu koy lekkee. waaw bu njëkk da nga daan téye nii. pour laax bi bañ a déborder. parce que ma fàttali lii. Mm-hmm. Euh, fruit boo xam ni la dañ ko consommer ba pare. dëgg lii. Mm-hmm. amoon na leneen lu nekk ci kawam. lu toll ak lii. yaa ngi dégg ah, dañ ko dagg ci digg lii dañ ciy liggéey kooraa. dañ ciy defar lu nekk. mais laax boo koy lekk. da ngay def nii Boubacar. mu wàcc mu wàcc. nga def nii. <laughs> waaw boobu leer na mais ñun bi ñu nekkee booy. Hmm. bu ñu yeewaan. Hmm. man Sayer seen Gueye. Hmm. Cheikh caam dañ daan jël suñu dàll. def ko nii. fu mu tourné rek fu mu tourné rek foofu am. yàgg est-ce que mës nañ la sëlëm. laax ci leket ah kay. ah budul benn du ñaar. ah ngeen rek ñu célèbre euh, dañu amoon benn booy bu. pata bu tudd zeng. bu tudd zeng. ah bu tudd zeng. Ah. Ah. Ah. zeng booy. zeng booy. foo lekkee lax musalam la. mus naa grand Malé fay grand Papis Faye. Hmm? foo lekkee lax musalam la. mus naa mus naa lekk laax ci benn ngénte. Hmm. ma jiiroo laax bi. Hmm. laax bi tàng ma sotti ko ci sebet bi. <laughs> acca bu ba. acca ñu dem waaw. mais comme. munoo lekk laax de. mais si ngénte bi bu ñu lekkee laax ba pare. ah mm-hmm. Mia. bu fekkee Mia est que vidéo bi pare na. Ah. Mia. sërëm sërëm sërëm baa naa ko Mia vidéo vidéo